jullil ci mag lu mag mu jëm ci mag magi mag ma doy turwa maam moor jaare ngeen gën a xam li tax ñu naa magi mag cheikh bamba mii ku ko mag mag nga ko mag te sëriñ moor jaare mee di magam maam jaara moo di ndeyam moor anta mbàkki sali mooy bàyyi bamba ak sëriñ moor jaare mii ku ne gëm mook bamba ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ci lu biir bambaay rakkam moo di mag muy mag ju fonk rakam mbàkke bawal la gënee àdduna bàyyam itam moo ko dalal jàng gannaaw ba takkee na fa dem nee nañ nijaayam sëriñ bu soobee foofa la jaar jàngee na foofa baraw rijaale làq ngërëm mbooleem funoon yi la peek moo raw ca waa jamonoom sëriñ bu soobee ko yar yoroon ko it ci këram mbokk yi jërë ci sunu site ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy bàyyi xel ak fuñ mën di nekk di leen nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh Mamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy kilifa yoon wi <clears throat> te di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi te wéeral aw yaramam ba mu eggale di nuyu suñu kilifa ak suñu wayjur wi ci biir sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur moom itam ñu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex yàgg fi lool te wér lool ba eggale naal yi simb yëpp te teg ci yeneen ñu ànd ko ak moom Euh, comme ni nga ko waxee rek lool nag ni nga ko waxee muy diggante boo xam ne bi diggante la boo xam yàlla leen boole yàlla leen boole ci li ñépp xam mooy ñu bokk ñaari way jur ñu bokk soxna jaara bokk sëñ Mor Anta Sali loolu rek doyoon na sëkk ñu wax seen diggante ndax xam ne diggante boobu leer mooy cosaan gi ndax sëriñ bi moo waxoon loolu ne bi muy ñëw ci suuf néeg soxna jaara la seen ak leer mu wàcc fa te ba mu fa wàccee Mamor jaara la fa fekk kon nag ñoom seen diggante ak leer moo ko tàmbali mu nekk itam diggante boo xam ne bi ñoo bokk parcours ñoo bokk ñu leen toqantal ñu leen yar bañ tollagul ci njàng la son soxna jaara daa taxawu di leen di leen tàggat ci yi nga xam ne moo nekk ci seen kanam loolu mag ñi bind nañ ko ñu bokk parcours seen waajur encadré tàmbali leen am njàng sëñ Mor Jaar nag mu jox ko nijaayam sëñ Bousso nga xam ne moom féetewutoon ak Maam Sali waaye sëñ Bousso bi la féeteeloon loolu nijaayam sëñ waajuram moo ko joxoon loolu biñ ci demee ba yàlla dogal sëriñ bi woote yoon wi fekk moom ci cosaanul yoon wi la bokk ndax wax naa la léegi ne leer moo mooy sos seenu tàmbali eh, mu taxaw ci wetu sëriñ bi mboolem parcours yi sëriñ bi am <clears throat> yépp sëñ Mor Diarra ci wetam eh, taxaw jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey mission bi mu amee itam mu dugal ci loxoom ba ñëpp xam ko Murtani nag li fi gën a rëy la fa gën a rëy mooy sëriñ bi fa la jotee werdu boppam muy al werdul maxuus werdu woowu bi mu ko jotee bi mu ko jotee sëñ jaar Jaara la ko njëkk a yónnee ci réew mi ndax boobu sëñ mag la te am na taxawaay bu mu soxla ci moom bu muy def fii ci njaboot gi loolu moo tax bi mu jotee ci werd wi rekk la ko daal yónnee Maam Mor Jaara fii ci réew mi mbooleem ku fi nekkoon itam moom la digaloon mu leen di jox werd wi kon daal mën nga ne seen diggante moom yàllaa ko xam waaye nag ci liñ mën a xam gis nañ diggante bu rafet boo xam ne bii ni bokk gi rafetal ni la ànd bi ak jàppalante bi rafete loolu rekk moo noonu seen dund ñu jox ñu leson nag ñun ñépp ñu jox ñu leson ñun ñëpp famille yëpp buñ xooloon ci diggante suñu Mor Jaara ak sëriñ bi danañ danañ danañ gën a dundalaat li nga xam ne moo nekk ci biir biir njaboot yi ndax suñu Mor Jaara mooy magi sëriñ bi ñoo bokk ay ñaari wayjur ñoo bokk parcours ba noppi e, jàngal na ko sax xam-xam te teewul bi sëriñ bi wootee mu nangul ko ànd ak moom ci liggéey bi ah, loolu moom yaakaar naa ñu baree bari fi mu toll nii boo doon xool fi mu toll nii nii rek boo demee ci kër yi bari maslaa fa am waaye rakk yi sax nangootu ñoo topp mag ñi waxuma laaj nag mag mu la féete fii yëpp ngeen bokk parcours bokk lépp mu jàngal la sax ba noppi nga woote mu xam ne yàlla dogal mu topp loolu leson bu rëy rëy la ci yi ñu war a jàng ci Mamour Diarra yàlla nañu yàlla defal tey bu baax bañ mën koo jëriñoo jërëjëf tabaarkàlla jërëjëf ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di santaat Cheikh Mamadou Mountakha ci jëf yi jëf ju rëy ji jëf ji nga xam ne moom ñëpp bég nañ ci xol yu taalibe yëpp bég nañ ci xol yu baax yëpp bég nañ ci ndax dafa dekkal démb Sëriñ Tuuba moo waxoon ne ku randalal bant Maam Mor Jaara mën nga ci wuutu ndax lu luñ koy defal rekk ma ko waroon a defal waaye li ma yàlla teg tax na ku ko randalal bant mën nga ci wuutu loolu nag si Mamadou Muntaxa xam na ko ba tax na la sëriñ bi waxoo it ne lim yorkat te mooy defar nit ñi daa am loo xam ne nii mi ngi ci moom am lu nekk ci Mamour Diarra Cheikh Mamadou Mountakha nag nam téel la ci sëriñ Touba jël si na li woon ci Mamour Diarra moo tax sëñ Abdoulahi ne ko keroog li li ko tax a jub mooy ñeenti ngërëm yi mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa ngërëmul sëñ Tuuba ak ngërëmul ma Diarra sëñ Abdoulahi ne ngërëm yooyu ko taxoon a jóg moo ko taf moo ko tax a jëf te am na ngërëm yépp loolu nag kon sëñ ma yi mag moom sëriñ Tuuba day koo xam ne kenn la mag Seexul Xadim ñoo bokk lépp bokk soxna Jaara Buso ak sëñ Mor Anta Sali nekkoon magi Seexul Xadim sëriñ tubaa tim ñoom ñaar kenn ku ne am tawfeex yoo xam ne suñu borom def na ko seen diggante ndax borom saam li muy mag sëñ tubaa lépp dafa jëloon lépp rek doon ab taalibe jox ko sa jébbal boppam Serigne Touba nungu dogal bi suñu borom def ci moom waaye sëriñ tubaa tim mag gi Serigne Mor Diarra nekkoon ci moom nekk kilifaam Serigne Touba da ko nunguloon defoon ko kilifa lool fonkoon ko lool. kon moom yaakaar naa ne ñoom ñaar ku ne li ma ci wax rek ku ne da am taw feex yoo xam ni suñu borom da koo def ci seen diggante ndax Serigne Mor Diarra da ko nungul. doon koo xam ni wax dëgg yàlla teel a ànd ak moom teel koo nungul kon tey jii ku ne xam ne ni borom saam sëñ tubaa ci boppam am na cër bu mu ko joxoon. am fu mu ko tegoon lool ndax wax nañ ni sax bu képp koo xam ne masan ngaa jugee boor yi moo xam jolof la wala bawol boo masaan a fekk sëñ tubaa njaaram daan la ndax ana sëriñ saam boo nu ko jaar naa fa sëñ sab siyaara dana neex lool sëñ bi dana am mbégte kon yaakaar naa ni borom saam am na fu sëriñ bi tegoon. ndax yaakaar naa ni bari na yu bëree baree bëri yoo xam ni waxtaan ni ko ci seen diggante ndax ñoom ñaar dañuy kenn ndax soxna jaara mi nga xam ni mooy waajuru borom saam liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko yàlla ba am ngërëmal suñu borom rek bu borom saam deful woon dara rek borom saam dara lay doon waaye nag borom saam day koo xam ni moom dafa liggéeyal boromam ba boromam gërëm ko daan koo foo ko fekk rek guddi gu ne daana naa fi la téeméeri rakka ndax wax nañ ni bu masaan di julli téeméeri daan rey am xar togg ko cere yi lay woo mag yi mbàkke yi ñu jox leen cere yi ñu xéwlu bu baax bu xew xéwloo ba noppi ñi mën a jàng alxuraan mu jox leen ñu jàng alxuraan ñi mën a sikkar mu jox ñu sikkar ci loolu lañ daan nekk di di màggal guddi gi ba bët set moom nag bu masaan kii taxaw taxaw di bu bu tàmbalee kaamil bi ba mu ne jënanti ma naa si ci waxtu fajar jot bu waxtu fajar jot mu julli fajar bu julli fajar dooram a fatu noonu la ko toppee woon ba ba keroog nga xam ne mu fi jógee sax daroon jàpp bi mu jàppee ba ba ba kii ci lañ fekk borom saam dem kon léppam yàlla la woon kon kooku wax digg yàlla euh, bokk gi mu bokk Serigne Touba rek dafa doy sëkk rawati nag maanaam mu am ab cër boppam liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm ko soxna jaara bu mi nga xam ne mooy lépp moom it di waajuram kon kooku ku yaakaar naa ni bisam képp ku ci ñëw rek na rafet njort te sa xel dal ndax moom wax dëgg yàlla kenn la woon daal kon moom borom saam moom. wax digg yàlla am na fu sëriñ bi tegoon mooy mu am fu mu tegoon sëriñ bi lool ndax boo xoolee ak njabootam da cee feeñ bu baax a baax a baax a baax ci njabootam ci dëddu àdduna ak nekk di ñoo xam ni maanaam wax dëgg yàlla jaamu yàlla rek lañ xam ak fonk sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci lañ war a nekk doo leen dégg ci lenn kon loolu yaakaar naa ko xam njaboot ak borom saam rek loolu mu xam nañ ko ci ñoom bu baax kon ñu ngi ñaan ci darajeem ak màggaayam ci darajee Cheikhul Khadim ak yonent képp koo xam ni ñëw nga fi rek lépp loo xam ni rek sa yitte la woon ak lu mu mën a doon tim yàlla na ko yàlla saafara ba li ci bëggoon suñu borom defal la ci kawe sëñ jot xam nañ ni sëñ tubaa moo sëñ tubaa bu sëñ tubaa ñooy jëf ci Maam Mor Jaara muy ñun taalib yi dañoo war a jëf sëñ Muntaxaa dañuy joxoñ rek dañuy joxoñ ndax ñun tey ji waa Mbàkke ñun jumaa ji ñun waa Mbàkke ñoo ci waroon am taxawaay bu mat sëkk ndax Mbàkke sëñ Mor Jaara mooy seen ab cër mooy seen bunt ci sëñ tubaa kon bu xalifa bi sëñ tubaa jëlee lu toll noonu def ko ci jumaa ji kon loolu ñun waa Mbàkke lay sëñ taxa bëgg a dimbale rek ndimbal la rek ab joxoñ la kon yaakaar naa ne sëñ Muntaxa loolu mu def waxuma la Mbàkke waaye yoonu murit waaye jullit yëpp la ko defal ndax sëñ Mor Jaara la sëñ Fàllu waxoon dana sëñ Mor Jaara moom lañ ma boole loon mu jàngal ma moo nekkoon sama sëriñ sëriñ nag boo koy jox tawul àllarba da ngay seet la mu gën a bëgg ma xam ne jumaa la gën a bëgg jumaa ji sëriñ Fàllu ko tabaxoon defal defaloon ko fi sëñ Mor Jaara joxoñ la ci ñun waa Mbàkke taalib yëpp sax laay wax ak jullit yëpp kon képp ku ci jëf rek na la woon ni da da da nga feeñ ba faaw kon loolu moom sëñ mu taxaamu dañ koy ñaanal rek suñu borom may ko fan wu gudd lool may ko ak wér ndax bu bu dee bu fi nekkee li sëriñ Touba ñu liggéeyal borom saam néegab yàlla mu jël jëf ju jëf ju tam nu def ko ci borom saam kon kooku moom Mbàkke dañ koy ñaanal rek mu am ñaar téeméeri at rek te ànd ak wér ci barke borom Touba wajaatu waaj iliman تكريمه بانا في زار مولدي من في البار ربانا وجعت وجهي لمن تكريمه بانا في زار مولدي من في البار ربانا mag joo xam ne day topp rakkam ci boo dee xool ci histoire l'islam mën nga jàpp ne ci sëñ Mor Jaara la njëkkee ci la mujjee ndax ba fii ñu toog di waxe nii amu ci kenn koo xamante ne bii sa rakk nungu nga topp ci ginnaawam kon moom loolu ndimbalal yàlla képp la te ndax dafa xam jëfandikoo gi nga xam ne moom la suñu borom jëfandikoo ci coobareem jox sëñ Tuubaa li mu ko jox bi ko bi mu ko joxee sëñ Tuubaa li mu ko jox itam muy magam ñu bokk soxna jaar ak Mamour Anta Sali mu xam ne lii ko suñ boroom jox euh, moom mi bokkal ndey ak bay génn ci ndax am na ñu wax ne ñu ko doon laaj téeméeri rakk yi nga xam ne moom la daan naafila dafa wax ne téeméeri rakk yi nga xam ne moom lay naafila guddi gu ne daf ko doon def ngir sante ko yàlla ngir boole gi mu ko booleeg Serigne Touba ko kon xam na bu baax a baax a baax cër bi suñ borom jox Serigne Touba mm-hmm. daana wax sax ne euh, fa xalun lima yurid nekkul ko daana wax Serigne Touba ne ko faxaalun li maa yurid ci yow laa ko gën a suñ borom mooy def coobareem nu mu ko neexee mu ne ko ci yow laa ko gën a gëmee ndax man du ma ab yaafuus loolu mooy moom fu nit di àgg ci jàmm yàlla àgg na fa fu nit di àgg ci diggam boromam àgg na fa fu nit di àgg ci diggante maslaa ak ak bokkam àgg na fa waaye nag coobare ji suñu borom soob mu jël Serigne Touba def ko ci kanamam loolee la loola la wax na fa xaalun li maa yurid ci yow laa ko gën a gëmee ndax man du ma ab suñ borom jëfandikoo coobare yooyu itam dafa jël jëmmam ju sell joojee jëbbal ko Serigne Touba muy sëriñam di léppam wax nañu ne sax bu masaa dem am na bis mu dem njaareem di siyaare gi Seexul Xadiim bi mu dikkee Serigne Touba bi mu bi bi mu ñëwee siyaare si Serigne Touba Serigne Touba da koy dalal dafa jël benn basang teg ko bi sëriñ Mor jaare ñëwee mu jox Serigne Touba jox ko ndigalal ngir mu toog ci basang gi sëñ Mor Diarra ne ko nañ def li yàlla def yow mi yaa ci war a toog toog ci sëñ Tuubaa tam ne ko nañ def li yàlla def yow yaa yaa ma mag toog ki eh, nga xam ne noonu noonu lañ giigante ñoom ñaar ba ñoom ñaar ñëpp ñu bokk séq basang gi kee toog ne kii toog ni ñu jàkkaarloo loolu kenn ku nekkoon xam na war ma ji sa war sa diggante ak morom doxee ko la loolu nag eh, ay leçon la yoo xamante ni bii ñun ñii nga xamante ni bii ñoo fi nekk fi mu ne war nañ ko eh, jàngat bu baax a baax ci nungu kilifteef mm-hmm. nungu kilifteef mooy sëñ Tuubaa Euh, xam na ne sëñ Mor Diarra magam la mu nungu kilifteef gi nga xam ne moo dox seen diggante waaye sëñ Mor Diarra xam na ne sëñ Touba kilifaam la ngir am na lu suñ boroom jëfandikoo ci moom mu nungul ko loolee. kon kenn ku nekk ñun war naa mën a xam bu baax a baax a baax euh, nan lay jëflanteeg kilifaam nan lay jëflanteeg ko muy sa mag muy sa nijaay wala muy sa way jur ak lu mën a doon rek euh, am na lu worma. ak euh, yoo xam ne war naa dox seen diggante war ma joojee nag euh, war nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax ndax boo dee xool day mel ne day bëgg jeex ci ci jamono ji. ñun ñooy ñan ñun ñooy ñi nga xamante ni dañoo war a topp njàngaleem seexul xadim ñun ñooy ñan ñi nga xam ne dañoo war a topp njàngaleem seex Ahmadou Diarra Mbacke borom saam yaakaar naa bu fekkee bis yu mel nii ñëw na mooy occasion boo xamante ni danañ leen leeral fàttali leen jëmm jooji bi mu nekkee ndaw moom nan la daan doxalee. ndax ñun ñëpp ci ñu ku ci ne soo ko fëggee rek day dóor ab dënnam ne la man borom saam laa léegi kon kan mooy soppeb borom saam mooy ki nga xam ne kon dafa war a dox ci la borom saam doon dox muy jëfee ci la borom saam doon jëfee kon léegi dana baax ñun bu fekkee yàlla dimbale nañu ba loolu jàng nañ ko ba xam ko ñu fexe ba suñuy doom ñu jàngal leen ko xamal leen ko jamono ji ñu toll daal li nga xam ne mu ëpp solo mooy fexe ba tegaat yar maanaam éducation am njàngale jàngal xale yi maanaam jikko ju baax jikko ju rafet ñan lañ war a roy ak ñan lañ war a xool yaakaar naa boo ci tuddee commune si Ahmadou Diarra borom saam nga xam ne ak ndawam yëpp ñi ko xam ñëpp wax nañ ne kenn mësu cee gis mu def lu mu war a def maanaam liñ ko xamee mooy ak dal lañ ko xamoon liñ ko xamee woon mooy yar liñ ko xamee woon mooy teggin liñ ko xamee mooy fonk ay way juram liñ ko xamee woon mooy nangoo jàng liñ ko xamee woon mooy sax ca la nga xamante ni moo nekkoon digalal yàlla ak i tereem kon nag ku mel noonu ñu agsee ci bisam ni ñu ko war a fàttalikoo dëgg la alxuraan ji xasida yi benn yi am na solo waaye itam fàttali nit ñi kii ci lii la nekkoon su ko defee xale yi man cee dégg loolu ba xam ne seen royukaay ci nii la meloon te jamono bi ñu toll seen yi koo ci fëgg rek li mu lay wax man taalibe la sëriñ Bàmba kon te soxna jaara nettali na ci ay yoonu yoon sëriñ bi bi mu nekkee ndaw ci yi nga xamante ni daanako ko doxalee daana ko kon dafay jaar yu mel nii buñ ci accès ñu jàngalaat xale yi ak ndaw lan la ak ndaw du fo ak ndaw du fo ak ndaw yar la ak ndaw teggit la ak ndaw nangoo jàng la ak ndaw nga nekk nit koo xam ne danañ am ci yow yaakaar ba ëllëg soo nekkee mag su ko defee ñu xam ne yow mi da nga nekk référence waaye danga nekk ku ñuy déglu. di sant Serigne Touba di sant Mamor Diarra borom Sam ci fekke gi ñu ko yàlla may ñu fekke ko. ndax Maam moo Jaara borom saam mooy magi mag ku ne dégg na ko kon bisam bu melee nii rek ah mbas mi ne ci àddina bi rek lëmbe ko moo tax mu demee nii waaye daawul demee nii waaye ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla bu nëgën si déwén na fekk lépp jeex ba nañ ko defee mën koo defee ñu tënku ci ndigal rek murid ndigal tënku ci ginnaaw sëñ euh, Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal borom mbég mi nga xam ne moo indi jàmm am de la ne ni ko comme ni ko Iran Ndaw di waxee mooy mooy mooy am de am de àddina sax laa koy wax yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam mu ñu digal ñu nekk ci ginnaawam noonu lañ koy sant sëñ Abdoulaye yàllay buur xalifa Maam Mor Diarra ci sëmb bu rëy bi mu sëmb ci kër Maam Mor Diarra jëmbal Maam Mor Diarra yàlla na ko inigré ba inigré lépp Mbàkke yaram sumbam bi rëy loolu Mbàkke waaye yàlla na ko maamam téeñal noonu lañ koy sante suñu waajur wi ci biir aji Jóob mu nga xam ne suñu suñu suñu waajur mu làqoo moom lañ fi nekkal mu mat ndey mat baay di ñaan yàlla jëmmam ji yàlla ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam a kanam mu fekk lépp di ko ñaanal sëñ Mara mi nga xam ne mooy suñu xalifa tey ni ci biir kër gi ah lépp lu ñu nekk mën ci rek ñun moom it yàlla guddal aw fanam bàyyi ko suñu kanam di ko ñaanal sëñ Aramin moom it noonu la moom it lépp lépp lu ñu di woote ci baax rek ma nga ca biir ba bisub màggal gi tey jii loxoom génn ci di ko ñaanal soxna as sama rakk ji nga xam ne bàyyi mu benn yoon mu wee soxna as Mbàkke mii di ñaan yàlla nag képp ku fi ñëw bu déwee ne lépp loo indi ci ak wéradi wala ak jaaxle yàlla na ko sëriñ Tuubaa Maam Moor Jaara borom saam saafara sëñ Tuubaa nag dafa am lu waxoon ci maam Jaara borom ñeenti fay nee na sama mag ji képp ku ko ku ko ku ko ñaqal ñeenti fay ngay am dinaa la fay maam Mor Jaara fay yàlla fay la yonti bi fay la kon nag ñeenti fay jaxata yàlla nañ ci am suñu xol sedd na guy dañ ko dañ ko oyofal ndax ni mbir mi demee ak ndigal waaye teewu taaliba yaa ngi jóge fu nekk di ñëw ñi ngi def benn yi nañ ko moom daal daanaka li ci manqué bëri xanaa jaxasoo bi rek waaye nag lépp loo xam ne nii rek ñi def rek liñ ci mën ñu ko def